kay. yegg si nañ ci fas yéene cee dalal na Omar Ba ñu ngi lay nuyu kilifa. di nuyu ñoom yaay boobu yëpp. ñu ngi déglu Walfadjri bëgg a xam lan la réew mi yëndoo ak la mu fanaanoo ci xët yi Walf Quotidien lam ñu ci jukkil Walf Quotidien dafa xëyee dellu soit ci tournée gi nga xam daanaka opposition bi ñu koy amal daanaka ci biir réew mi dañuy gis ne jamono ji def am ay benk ñenk ci am li ko waral mooy waxtu fu ñuy jàmmee ay gendarme ak ay policiers ñoo leen di arrêté tax mhm. yéen a kaay giir Walf Quotidien xëyee tey daal ci amal taxu seetlu waaye bu ñu sukkandikoo ci administration bi moom dañu jàpp ne opposition bi ñoo jaaru ci bu ñuy dugg ci ab bërëb dañu war a dara noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy mooy euh, euh, mooy euh, jafe yi nga xam ne ni mhm. Sénégalais yi ñu ngi koy dund jamono ji mu soxal wàllu courant subvention électricité bi nekk un mal nécessaire yéen kaay gi di Ousseynou Gueye kon moom la xëy tey ji mhm. daal di ci amal ab chronique mangoog tribune yéen gi di la tribune dafa xëyee dellu soir ci rapport 2023 muy soxal civisme monitor ab ab ab maanaam bànqaas mhm. dafa yëngatu ci wàllu liberté société civique euh, gis nañ daal Sénégal jamono ji euh, daanaka da cee deltu ginnaaw bu baax a baax ci at mi noonu la ko yéen a kaay gi di la tribune xëy fësale l'info lum ñu jukkil yéen a kaay gi di l'info ci loolu la xëy dellu si waat ne rapport la boo xam ne nii moom la ñu tuppee civic monitor ab rapport la goo xam dafay wax ci liberté civique ci atum 2023 uh-huh. eh, gis na la Sénégal jamono ji na mu cee daanam du daanu sax man ab jël la bu hmm. doy waar la ci am ndax gis na liberté doomu aadama yi dañ koy salfaañi xale yi léegi Sénégal kenn ñemetu la wax uh-huh. teg ci l' opposition maanaam ki kaso bi euh, boole ko euh, noonu la ko yéene kaay gii di l'info xëy fësal yor yor bi xuus na ci yéene gi yor tamit la xëy dellusiwaat wax ci rapport annuel civique euh, ci wàllu liberté liberté civile yi nga xam ne daal Sénégal jamono ji euh, mu ngi ci réew yi nga xam daanaka jaay doole lañ fi nekkee euh, maanaam lu ma neex ngay def. Mhm. boo ko deful ma jàpp daal lay duma noonu la ko yéen a kaay ngir yor yor xëy fësal. yéen a kaay geneen critique président Macky Sall mel na kuy topp kuy tontu rapport boobule moo tax démb ci dajeeb conseil des ministres ma ngay fësal. Euh, copp daal yi nga xam bëgg na koy indi mu soxal ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ak it ñi fi nekk di fi dugal ak alal yoo xam daanaka sellut euh, ba ci wàllu terrorisme noonu la ko yéen a kaay gii daa di critiquer Sud Quotidien yéen a kaay gii Sud Quotidien ne neexul ba neexul financement parti politique bu fekkente ne am na benkañ a gi am uh-huh. euh, Abdou bokk am na ci am na ci part de responsabilité Abdoulaye Wade ba ci kii di président Macky Sall li ko waral mooy kay ñoom dañoo jéemul dara ci seen opposition uh-huh. maanaam du leen jàppale ci lenn Eh, te mooy day ñoom jamono ji li nga nguufaan àlal réew mi te pas fàtte ne opposition tamit ci nguur gi la bokk mm-hmm. eh, tax yéen kaay gi di ci amal euh, heures ne président Macky fu mu toll nii kontaanul eh, ci la nga xam moo aju ci wàllu communication moom kontaanul ci benn yoon moo tax démb ci ndajam conseil des ministres dafa jàpp ne communication gouvernementale dafa daanu lool dafa mm-hmm. wàcc ba tax muy sàkku ci gars yi daal ñu jël ci ay matukaay nañu la ko yéen réew mi quotidien ku mu dalal application loi sur le financement des partis politiques Doudou Wade wax na ci. Uh-huh. moom nag dafay joxoñ ab para euh, baram opposition bi ne li la war dañ ko ca deful. Uh-huh. noonu la ko yéen a kaay jiite réew mi xëy fësal. Euh, bés bi le jour. Euh, dafa ñëw dañuy fàttali ah. Uh-huh. jamono ji nga xam ci la ñuy déposé parrainage yi fële ci loolu atum 2019 la woon ak candidat yi nga xam ne leen cee recalé. waaw yéen a kaay kon mu ngi dundal. Euh, parrainage bi ci atum 2019 mu ngi ci yéen a di bés bi. ma ngoog euh, a mhm. mhm. euh, soleil fu mu président Macky wax na ci sanctuaire marial bu Koungheul ñu ngi ko war a ubbi ko ni gën a ëllëg maanaam samedi lay doon ñu fas yéene koy def nag ci teewaay ki nga xam ne moom moo di envoyé bàyyi ba Pape François foofu nag président Macky Sall sàkku daal yu lépp de lépp daal lu matukaay eh, ngir xew xew wala mën a jaar ci yoon noonu la ko yéene kaay gi di la Soleil xëy Source A lu doy waar la moo am fële ci crédit mutuel du Sénégal nekk fële ci El Malick eh, si eh, fa ne daanaka jamono ji caabi féete leen ginnaaw li ko waral nag moo di ay prêt yu ñu def mhm. prêt yooyu nag ndekete ci yoon noonu la ko yéene kaay gi Source A xëy fësal ma goog le mandat Ahmed Aïdara fësal njàqare gi mu am jëmale ko ci Mm-hmm. marché ak gré bi nga xam ne ko tudd ci ministère de la santé marché bi nag mu ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak benn milliard ci franc CFA nee nag dossier boobu sax fu mu toll nii mu ngi ci loxol waa union européenne mm-hmm. Ahmed Aïdara nag mu ngay fësal njàqare ak tiis gi mu ci am noonu la ko yéen kaay di la mandat xëy fësal am euh, enquête lu mu fësal ak enquête euh, yéen xëy dellu si waxtaan mm-hmm. ci Euh, bor yi nga xam ni. waaw nguur gi mun ngi ko amee société yi fi nekk tey yëngatu ci wàllu distribution pétrolière. Mm-hmm. Euh, euh, pétrole. waaw nee na ñoom jamono ji état bi mu Sénégal mu ngi leen lu ci tolloog téeméer ak ñeent fukki milliards ci franc CFA. Mm-hmm. ñoom daal la sàkku ci gouvernement bu Sénégal moom fay leen ko balaa lambaye ñaaw ñu mm-hmm. la ko yéen kaay gii di l'enquête xëy Fesal Abdoulaye ngoog ñu jeexale kook suñu làmb wax ci combat gi war a dox ci diggante Diène Kairé kii di Zarko Euh, Boy Kayre mi bàyyu ji bébé jë euh, ak kii di euh, Diène Kayre wax na ci ah. Mhm. nee na combat bi écarté wu ci kaw kawoo. maanaam mu daan daal mën na ci am daanu mën na ci am. la ko a kaay gis suñu làmb xëy fësale ci jamono jëlee taxawal nañu combat gi nga xam ne nii ñu bëri ñu ko doon xaaj laaj. muy combat bi war a dox ci diggante Gris ak doomu Dangu. Mhm. combat boobu la taxawoon. maa ngi koog Seydina Omar Ba faram gi am na solo lool bégg nañu lool ci xibaaru suba si ci wàll.